am benn réclamation bu ñu jot ci benn ndaw mu xamal ñun ñu am na benn magasin bu nekk Pikine Icotaf am na fa benn euh, loo xam ni tey na xelam bëggoon nañu ñëw saytu ko aussitôt bi ñu jógee ak suñu équipe ñu dem sur place bi ñu ñëwee foofu gis nañ ne li mu doon wax am na parce que bi ñu diggee ci biir fekk nañ fa ay produits yoo xam ne baaxatul waratuñ ko jëfandikoo te dañu pare woon pour dugal ko ci marché bi te loolu day lor askan wi ci la ñu defee ñun retirer produit bi maanaam jël produit bi dugal ko suñuy oto indi ko ci brigade bi waa ji def loolu tamit ñu jël ko indaale ko ñu ko indee fii ñu entendre ko ci procès verbal xamal ko li mu def lépp li ci yoon wax lépp ñu teg ko ko teg ko ay daan comme ni ko code de l'hygiène diglee produit bi ñu ngi koy xayma si juróom-ñaar fukki carton ak ñett boo ko xaymaa ci xaalis dina doon téeméeri junni ak juróom benn fukk ak juróom benn téeméer carton mayonnaise la mayonnaise yu cinq yu cinq kilos benn siwo bu cinq kilos daan yi mën na dem ba deux cent mille ba deux millions parce que dafa boole ay infraction yu bëree bëri barab bi jëfe fa produit yi baaxul barab bi tilim na amuñu këyit docteur saytuwu leen xoolu leen ndax amuñu jàngoro am déet ba pare ñuy jaay lu ñuy lekk ba pare li ñuy jaay baaxul dafa produit bi dafa avarié. ñuy lancer appel population bi que ñu gën a am vigilance comme lii waa ji def tey ñu am culture di di bu ñu gisee loo xam ne normalul jaaduwul rafetul te mi ngi bëgg dem ci askan bi di leen lor ñu am taxawaayu ñëw. ci fii si service d'hygiène bu Pikine ñu dénoncé leen ak bépp service d'hygiène bi nekk ci Sénégal ñu dem dénoncé loolu pour suñuy ndaw ñëw taxaw ci saa indi ci saafara parce que lii tey bu ñu ko bàyyi woon mu dugg ci population bi maare day taal yi ay jàngoro la fi indi yu doy waar loolu lu moto moytu la donc ñu ngi ci su tabaski ne nit ñi vigilant bu ñuy jënd produit ñu xool dat péremption yi xool yëpp su baaxee ñu jënd su baaxul ñu bàyyi dénoncé ko ñun pare nañ suñu service mi ngi nii ubbeeku na 24 heures sur 24 fu ñu ñu oo dinañ ñëw saytu liñ ñu wax am na wala amul lépp lu ci yoon wax dinañ ko teg ki nga xamante ne moo ko def.